maa ngi leen di nuyu yéen euh, di wax ne tey moom dañuy waxtaanee lii mooy li ñu wooyee touche tab bu clavier bi euh, ñenn ñi di ko wooyee touche tablichon euh, mais ñaari nooy yi même signification yi la daal comme ni ngeen gisee ci photo bi noonu mooy touche tab léegi dafa nekk touche boo xam bu am am njëriñ la léegi njëriñam fi ñu ko njëkk seen toog mooy pour remplir formulaire comme ni mu gisee dafay bindee nii ci. présentation bi euh, su ngeen de remplir formulaire touche tab bi dafa efficace trop léegi nag pour wan leen affaire bi en démonstration pour ngeen comprendre ko dañuy ñëw fii ci par exemple pour wan nañ ko en action nii dañuy ñëw fii par exemple ci euh, kii euh, par exemple dinañ leen ubbi benn compte Gmail parce que foofu mën nañ fa am benn formulaire quoi pour ma defal leen démonstration mën nañu fii ci créer compte ma def créer pour moi léegi formulaire bi génn nii léegi fii nag li ñu fi tàpp moom jëru sax euh, kii dañ leen wax ne pour touche tab bi ñu ngi utiliser léegi nañ génnee xaaral ma génnee clavier visuel bi comme ça ngeen gën a am kii euh, ngeen gën a comprendre nga expliquer voilà léegi clavier visuel bi mi ngi nii voilà très bien léegi nañ dem fii ñu tàppe par exemple par exemple AB rek ma def AB par exemple loolu dama leen di wane pour léegi fii au lieu que ngay yóbbu surbi di dem di tàppe fii nii di cliquer loolu day jël temps da def touche tab rek gis nga boo defee mu jëlal la ci case bi yóbbu la ci beneen case bi topp ci formulaire bi nga remplir foofu par exemple ma def CD lii dama dama leen explication la pour wan leen rek euh, pour wan leen gis nga ni moom automatiquement dafa ma proposé benn utilisateur mais pour ñëw fii nii du ma taam ngay cliquer rek moom moo lay yóbbu ci toujours ci cas suivant bi mu proposé la lii ne la mo comme euh, email léegi nañ jël affaire boobu wala wala mu non email yëpp proposé nañ ko yi yëpp disponible na ñu def noonu Gmail gis nga nii léegi ñu ñëw fii nii utiliser pour mot de passe bi euh, xaaral ma def fii un deux damay def lu ma neex rek mais foofu wër moon a dem ci clavier ci kii bi bi ma defee bi ma ñëwee fii nii tapé bu njëkk bi damay def tap toujours defar tap moo gën a gaaw léegi nga cliqué après nga def tap gis nga nii mu ngi indi la ci beneen kii pour visualiser mot de passe bi soo c'est pas la peine léegi mu defal la tap gis nga nii daf lay indi fii nii gis nga nii se connecter à un compte existant voilà français gis nga tab bi boo ko dee cliquer day connu dem gis nga nii aide confidentialité yëpp gis nga loolu mooy loolu mooy njëriñu tab bi daal dafa lay permettre ngay dem case par case au lieu ngay cliquer loolu dafa lay gën a gaawal par exemple ak formulaire euh, li ma leen wax nii c'est valable pour formulaire presque problème familial yi ngeen di am yëpp ci euh, navigateur yi par exemple bu ngeen demee ci benn euh, benn site boo xam ne daf leen di euh, jox benn formulaire bi ngeen war remplir toujours touche tab bi dafa am solo trop. léegi ci présentation bi encore ci li ñu waxee changement de fenêtre changement de fenêtre tamit tab bi koy daf koy permettre ñu def ko par exemple imagine woon par exemple dama ubbi dama ubbi woon Google mii après ubbi Microsoft Word. xam ñaari application yi mu ubbi la léegi pour ma jógee ci Microsoft Word dem bi dem di cliquer mais bu dee touche tab bi par exemple euh, nañ indiwaat clavier visuel bi nañ indi clavier visuel bi par exemple fii nii léegi dama ñëw ci Google léegi après dem a jógee ci Microsoft Word application boobu noonu dama bi damay def euh, alt def touche tab gis nga ni automatiquement daf may indi ci navigateur Google bi comme ni ngeen gisee nii loolu mooy njëriñam quoi gis nga daf lay génneel sax nga xam ne fi nekk yëpp war a naviguer suivant les fenêtres. Euh, loolu daal laa yoon naa leen ko indil comme information li ñuy wax ne touche stade moom touche bu am solo la surtout euh, bu dee côté formulaire bi ngeen remplir moom dafay accélérer seen euh, par exemple seen saisie saisie bi ngeen def ci formulaire bi nga xam case boo jógee parce que comme clavier bi moo gën a moo gën a moo gën a accessible nga def touche tab avancé ci beneen case bi boo remplir case boobu defaat touche tab ainsi de suite ainsi de suite loolu laa doon naa comme information euh, di leen jaajëfal.